بكي الحمد لله ان شاء الله نيجي ورا جلتي اي 82 تي سوره سوره الاسراء في سن برام دي وخيني وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi salaat sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dëppale ci jataay bu mel nii ci ab néegam ay ngëneel yu bari suñu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ko ca bokk na ca loolu مني إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر سني بروم دي أمنا ملائكة يوخمنا دلينا تساري تكوصوف ني نك دي نميكو فني دجي دي فتد بروم بي تخمنا نبك أفضل الذكر كتاب الله لغنتي ذكر موي جانتي بروم بي mu ne bu ñu ñëwee <coughs> malaaka yooyu dañ leen di wër bokk na ci xadis ba gudd waaye la koy tënk rek suñu borom dana leen laaj waa ñoom lan moo tax ñu toog ñu naa ah, yàlla day ñii dañoo toog rek ngir sàkku sa ngërëm mu naa ah, ndax ñoom mas nañ maa gis malaaka naa ah, déedéet kay mësuñu laa gis mu ne waaw buñ ma gisoon nag na ñi day buñ la gisoon kon dañ gën a yokk seeni góorgóorlu loolu ji jàngal mbokk gëmal ni ba baa ngay dee doo gis sa boroom képp ku la woo ne la day woon yàlla xamal ne seytaan ne la lay woon waaye sa boroom doo dee du dul doo doo ko gisul dul da ngay faatu amma nag bu la yàlla wërsëgalee nga tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ca su booba dañ gis foofu suñu boroom dañ leen laajit ma lu ñuy sàkku ñu naa ah, yàlla di ñi li ñuy sàkk mooy aljanna te it mbokk loolu mooy li gën a màgg lu doomu aadama bu xellu di war a sàkku ci kaw suuf suñu borom bi mu tàggee ay yeneen tam lu mu leen tàggee inna axlasnaahum bi xaalisatin zikra daar ba mu tàggee yonent yi dane da leen jagleel seen xalaat yépp mooy kër ga kër ga mooy lan mooy aljanna tey ji moodu moodu bi nekk Amérique ak Pologne ak feneen ak feneen bokk ni bu xelloo na muy mën a def ba dajale teraanga ba dellu réewam ñun nag mbokk suñu réew mooy aljanna yàlla na yàlla delloo ñu fa suñu borom dana leen la waaw ñoom ndax dañoo mës a gis àjjana kii ne déedéet ma ne waaw buñ gisoon àjjana nag kii ne ah ñu day seen góor góorgóorlu yi day xam naa bu ñu gisoon àjjana moom dañ gën a góor góorlu waaw ñoom am na lu ñuy ragal mu ne la gën a màgg la ñuy ragal mooy sawara ay mbokk jullit xamal ne li gën a màgg mooy sawara dem tëdd prison na la na la jaral ngay dem di tëddi sawara ñu dóor lay bal nga dee na la jaral ngay dem di tëddi sawara nga dee ci ñàkk ba faw na la jaral ngay dem di tëddi sawara suñu borom mu ne waaw ndax dañoo gis sawara ñu ne déedéet mu ne waa ñoom bu ñu gisoon sawara nag ñu ne ah, ñii de bu ñu gisoon fa sawara daañ gën a fegu suñu borom mu ne malaaka yi seedal leen ne man mi tax ñu toog day jagleel naa leen sama ngërëm àjjana ji ñuy sàkku dana leen fa dugal danaa leen musal ci sawara sa seen jataay boobu bu ñuy jóg daan jóg ci ma baal leen seen bàkkaar yépp malaaka yi na ko waaw moo ne day sëñ càmm mi moom mooy jàng bi zikri bi indiwu ko woon waaye daa ñëw fekk ñu toog mu toogoon ak ñoom suñu borom mu ne boole leen ko ci liste bi innahum unaasun laa yashqa bihim jalisuhum ñooñu képp koy toog ak ñoom doo texee di looloo tax mbokk ku nekk war ngaa xam fooy toogal ñan ngay toogal ñan ngay bëgg ñooñu kuy toogook ñoom doo texee di gis ngeen yal yàlla boole ci suñu jotaay bi mboolem ñi koy nar déglu fu ñu mën a nekkee yal yàlla boole leen ci dafayal ñu ñi nga xam ne ñoo koy tasaare mu jëm ci ñoom kon tey mooy euh, fanweeri fan ak benn ci ci weeru juillet 2024 di dëppoog le 25 ci muharram ci 1446 ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن من يلا ديني وكت القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين loo xam ne dana nekk saafara dana nekk yërmande ñeel ñi gëm wala yazidu zalimina illa xasaara waaye du dolli tooñkat ya lu dul pertaange wa ana am na alal insaan heure bu ñuy xéewalee ci doomu aadama arada mu daal di du muuyu wa naa bi janibi sori beru ci ak wetam wa ida massahu charru heure bu ko dalee ak lor nag heure bu ko laaleeg lor kaana yauusa mu nekk koo xam ne ku ñicci la ay koo xam ne du amati yaakaar ci yàlla qul kullun yaamalu ala shakilati neel ku nekk day dee jëf te la nga xam ne mooy melokaanam fa rabbukum aalamu bi man huwa ahda sabila seen borom yàlla nag moo gën a xam ana kan moo gën a jub ci aw yoon wa yasaluunaka ani ruux ñi ngi lay laaj lu jëm ci ruux xuli ruuxu min amri rabbi neel ruux day ci sama mbiri mi sama mbiru borom la bokk wa ma utiitum min al ilmi illa qalila doonte na jotu leen ci xamxam xam lu dul lu néew wala in shina la nazhabanna billazi awhayna ilayk suñu nee xool ñu daal di demee yóbbu li nga xam ne ni moom lañ wax yu jëme ci yow summa laa tajid laka bihi alayna wakila gannaaw ba am ñeel ci loolu kenn koo xam ni moo lay euh, gàddu di la wakiirlu ba ngay amat loolu mi ngi noonu mbokk téere bi ñu tiim mooy alquranul karim suñu borom yàlla moo ko wax muy ay waxam mu wàcce ko ci ñun muy xéewal gi gën a màgg gi nekk ci kaw suuf suñu borom yàlla tagg ko tagg yu bëri quranul karim quranul azim quranul majid ila axiri mooy tagg bu nekk mu ne nag moo koy wàccee mu nekk shifa nekk di saafara alquran moo ñooy def saafara bokkaale nekk ca xol di saafara naafiq ga nekk ca xol di saafara rëy ga nekk ca xol di saafara lépp loo xam ne nii ay jukk yu ñaaw la woon ñi ngi noonu waaye di saafara jëmm yi alxuraan day saafara jëmm loolu moo tax ba dangay gis lu mel ne fatiha bokk na ci aw turam ñu tudde ko ruqiya mooy day day mocc lenn ci sahaaba yi dem nañu ci benn dëkk ñaan leen ñu fat leen ñu bañ yàlla yónni lu matt borom dëkk ba jiit la wala jaan mu dem bay waaja de bañ demee ci sahaaba yi laaj de ndax amul ko mën a mocc kenn ci ñoom jóg na ah kay man mën naa mocc faatiha la ca doon jàng waa ji ne ceg kaw wiir mel na dara musu ko dal ñu jox leen ak jur ñu ne nag duñu ko laal te demuñu laaj yonent bi alayhi salaam ba xam bi ñëwee ci yonent bi alayhi salaam mu ne lu la xamal ne faatiha day day mocc ruqiya loolee mbokk mi ngi noonu am na ay borom xam-xam yu ci def ay expérience wallahu aalam ba sax bu ñu masaan yéeg feebar seen yaram dañuy jël kaasu ndox di ci jàng fatiha di ko naan jublu ci barkeeloo li suñu borom wax ne shifa gannaaw ba it borom xam-xam yi expérience yu ruqiya bari na ay ayat yoo xamee ne nii gis nañ ci daan cee fat yenn feebar yu bëri rawatina ñi nga xam ne dañ leen a jabar ni ñu takk ay xala am na ay ayat yu bari ya ca jiitu may muawisat mooy qul walahu ahad qul zirbil falaq qul zirbil nas ak yu mel na ayatul kursi ak aya yi wax ci njabar ci yàlla tasaare ko ci suratu taha suratu yunus mi ngi noonu suratul araf kon loolu expérience la buy wane ne xatta jëmmi ji alquran dafay doon lu koy saafara waaye jubluwaay bi gën a rëy mooy jàng gi jullit di jàng alquran day saafara la nekkoon ci xolam ci sikki sàkk ak kéeféer ak nifaq ak kaza wa kaza wa kaza waaye nag mbokk mu nekk yërmande yërmande boo xam ne képp koo xam ne nii jaar na ca yàlla dana ko yërëm àdduna yërëm ko àllaaxira alxuraan li mu woote lépp yërmande la ñeel jaam bi commencé julli ya koor ya xatta li ñuy tuddee code pénal yi ku sàcc nañ ko dagg loxoom ku njaaloo nañ ko rey loolu lépp yërmande la ñeel la nga xam ne mooy jaam yi su ko defee moo tax borom bi subhanahu wa ne fu ñu koy jàngi déglu leen ngeen teewlu ngiree ñu yërëm leen fa ida quriya alquran fastamiu lahu wa ansitu mi ngi noonu su ko defee it ñu bàyyi ci xel jullit ñi màggal ko bañ di tek alquran alquran di way ngeen dur seni waxtaan fekk yalla ngi tekko yalla ngi djegge di wax aya yo xamne ni dafa won titre wara joylo imma ñu fay alquran bi continue waxtaan bi wala ñu waxtaan bay alquran bi mu deglu bu ñuy jàngal quran fastami'u lahu wa ansitu suñu borom dafa boole ñaar mooy déglu leen ca noppi la allakum turhamun ngir ñu yërëm de loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax képp ko bëgg yërmaane na teqoog alquran képp ku jaaxle na taqoog alquran donte ne borom bi nee na du dolli tooñkat yi lu dul ak pertange mbokk tooñkat yi euh, ñu gën a màgg ci tooñkat mooy bokkaale inna shirka la zulmun azim tooñ mooy xañ ka tooñ ak xam yàlla nag moom rek mooy yooyu ñu jaamu ko heure boo jaamoo leen dul yàlla tooñ nga sa borom jël waala <coughs> donte ne yow yaa cey loru waaye tooñ nga yàlla moo tax suñu borom mu ne tooñkat yooyu du leen dolli lu dul la nga xam ne mooy pertaange gannaaw ba nag mu dellu suwaat ci nature doomu aadama mbokk ki bind mooy ko xam suñu borom nee na doomu aadama yi la ëpp ci ñoom su leen yàlla xéewalee heure bu waaraate ñëwee ñu won ko gannaaw depuis ci yàlla nu wax mi yàlla jëkk yónni ba bàyyi ci yàlla Muhammad ak ñi waaraate ci gannaaw yépp borom alal néew na mu teel a wuy si wooteb alquran al insana la yatgha an raahu istaghna heure bu jàppee ne moom il est du nangoo déglu waaraateeg boromam day bëgg a sori waaraate googee sori ña nga xam ne nii ñoom ñooy a bëgg a jëfe waaraateeg borom ba na bi jaani bi gis ngeen am na boo xamee ni nii lor koo dal mu daal doon ko ñikki jàpp ne dootul euh, amate ba faw dootul wérité ba faw loolu mooy li ëpp ci doomu aadama am na nag ñu ci néew ñu ci néew te mooy wa qalilun min ibadiy shakur ñu ci néew mooy ñu gëm yàlla nga xam ne ñoom duñu zalimin bal dañoo gëm yàlla borom bi subhanahu wa taala ñooñu lu leen yàlla dëppali mooy la yonent bi alayhi salaam doon wax ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr ak yéeme mbiru jullit léppam rek yiw la ndax bu ko yiw dalee shakara fa kaana xayrun la bu ko musiba dalee sabara fa kaana xayrun la ñu ngi noonu jullit mbokk mooy ki nga xam ni xéewal yu ko yàlla xéewalal da koy gën a jegeel yàlla xéewal yëpp mu delloo ko fa neex yàlla gëm na mayu ko boppam yàlla moo ko ko may gëm ne bu sante yàlla yàlla sàmm xéewal gi yokk xéewal gi te it du ko yàqal la koy xaar àllaaxira amma bu ko lor dalee jullit heure bu ko lor dalee day gëm ni li yàllaa ma ko teg ngir nattuma ngir yëkkati samay daraja ngir far sumay bakkaar ngir xool naka lay réagir te su ma muñee muñ go rafet yàllaa ngi ànd ak man inna allaha ma assabirin loolee da ngay gis ne bañu dindi yaakaaram ci yàlla ñàkk naa tey incha allah ëllëg yàlla dana ma jox feebar naa tey incha allah yàlla dana ma dana ma euh, wéral nekk naa ci xat-xat incha allah inna al usri yusra mu safaanoo nag ak ki amul loolu tey boo demoon dëkk yi nga xam ne xamuñu diine la fay xaru kenn xamul nu ma toll drogue bii nga xam ne moo tasaaroo de par le monde Sénégal doo toog une semaine ci déggoon na jàpp nañu un milliard jàpp nañ nàngam dara wóoru ko lu dul sa doomu aadama yi bëri suñu amee problème jaaxle nañ immaa ñu drogué wu wala immaa ñu xaru loolu nag bokk da ngay gis yow jullit loolu moom du sa problème xéewal yi ak natt yi xamoo ban moo ci gën ci yow bu xéewal ñëwee dal santal yàlla bu natt ñëwee muñul muñ ko rafet ak bëri ay natt yoo xam ne nii moo lay tax a texe àllaaxira yawmal qiyaama borom boobu nag ne ku nekk yaa ngi liggéey ci sa melokaan na am ñi gëm yàlla ñi ngi liggéey lu baax ñi weddi yàlla ña nga ca yoonu ban wa alxabisaatu lilxabisin walxabisuuna lilxabisaat waltayibaatu liltayibin waltayibuuna liltayibaat ña nga xam ne dañoo teey am ngëm gu sell doo gis ñoom lu dul wax ju baax jëf ju baax ak jëflante bu baax mi ngi noonu ña nga xam ne dañoo bon lay feeñ ci ñoom mooy ak safaanu loolu mooy lu bon rek lu yàlla gërëmul kullun yaamalu ala shakilati ku nekk la nga xam ne mooy sa melokaan yaa nga ca sa borom yàlla nag moo gën a xam ko gën a jub ci aw yoon loolu mbokk jullit ñu xam ne yàlla xam ay jaamam doomu aadama da ngay njort ci sa moroomu jaam naam bépp moroomu jaam boo gis zahiram mooy bitteem baax na mi ngi fonk julli mi ngi moytu bakkaar yi mi ngi def lu baax dañuy njort ci moom ne kii de jaamu yàlla bu baax la bu dee woon ñu njort ci moom ne àjjana la jëm amma duñu dogu ci moom ndax yàlla moo xam ay jaamam fala tuzakku anfusakum huwa alamu man ittaqa yàlla moo gën a xam ay jaamam yàlla ma kon moo gën a xam ki jub wax nañu kenn ku jub muy suñu yonent solo alayhi wa am déet mu ne in tuti uhu tahtadu yonent bi moom jub na képp ku topp yonent bi dëgg jub mi ngi noon in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee dangeen ngeen jub borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñi ngi lay laaj lu aju ci wàllu ruux neel ruux day sama mbiri borom la yéen li ngeen am ci xam-xam dafa néew bokk loolu bokk na ci boroom xam-xam yi li ñuy wax ne waa Makka ñoo doon laaj juif yi ne ñun de dañoo am ku ñëw ci ñun di woote ñu ne laaj leen ko ñetti laaj su tontoo yépp du yonent su ko tontuwul benn du yonent su amee lu mu tontu bàyyi nga xam ne yonent la laaj leen ko wàllu Zulqarnayn laaj ko asaabul kaf laaj ko ruux bañ leen bañ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di tontu mbiru zulqarnayn tontu mbiru ashabul kahf loolu ma nga ci suratul kahf amma ruux mu ne leen ruux lay sama mbiri boroom la ca mbokk ruux kenn xamul lu ma doon suñu borom mu ne li ngeen am ci xam-xam dafa néew ruux ñun ñëpp ñu ngi suñu ruux xar yi ñi ngeen seen ruux lépp mi ngi seen ruux mais kan moo mën a comprendre ruux tey jii depuis que médecine commencé depuis découverte commencé doomu aadama yi duñ dañ di gëstu mooy doomu aadama lu tax muy dee li tax muy dee am na lu génn ci moom loolu mooy ruux ruux googu buy génn ndax dañ ko gis indi nañu appareil yi gën a sophistiqué partout def ay expérience mais kenn mënul am lu dul c'est un constat mooy ruux mi ngi fii mi ngi dund jóge ne fi dee na am na daal juróomi mbir yoo xam ne nekk na ko en contact ak doomu aadama mooy sa biiru yaay bi nga amee 4 mois lala yàlla indil ruux nga dund ak ruux googu def fois cinq mois ci biir biir biir biir bi loolu moom doo ca fàttali ko dara mais xale bi depuis quatre mois ba neuf mois mi ngi dund ci biiru yaayam gannaaw bi bi nga juddoo bi nga juddoo ñun ñu ngi nii ñu ngi suñu ruux ñu ngi toog di yéeg am yéeg yéeg ruux gaa ngi ci biir da ngay gis koo xam ne fi may waxee fa la dee ruux ga dem na dee na si fini ah mun la mooy deuxième étape bi troisième étape bi mooy booy nelaw waa ji dey nelaw ruux googu suñu borom da koy jël jël goo xam ne nit di jëlu définitive léeg-léeg mu jël ko di ko wan ay mbir di ko wan ñu dee woon depuis cinquante ans ñuy wax ak moom léeg-léeg mu jël ko di ko euh, wan ay mbir yoo xam ne nii dana ko bànneexal am na ñoo xam ne gént daan ci dem ba ba ñu yeewoo dañu war a sangu jëfarata léeg-léeg mu wan la ay mbir yu la tiital lool loolu lu ci bëri day jóge ci seytaan mais roox gi mi ngi am ak yow contact loolu mooy mbir bi ñeenteelu étape bi mooy fi nga nekk ci biir bàmmeel nit ki bu nekk ci bàmmeel ruux gi dafay am relation ak jëmm ji même jëmm ji bu ñu ko taaloon ba mu nekk doom ruux googu moom am na relation boo xam ne nii suñu borom dana ko def ba di ko bànneexal ci barzaq di ko mbugal ci barzaq loo xam ne day dellu ci ruux gi amma dernière étape bi nag mooy yowmal qiyaama la yàlla di dekkalaat jëmm ji boole ko ak ruux gi ñuy dund ci bànneex boo xam ne nii amul fu mu yem ci àjjana wala mbugal boo xam amul fu mu yem ci sawara lii nag moo suñu borom mu ne li ngeen am ci xam-xam dafa tuuti masalan tay portable bi ku ñëwoon ne imam sa waaw ki nu ñu def ba benn waay nekk ci amérique nga taal rek masalan jàkkaarloog moom nii appel vidéo nga koy gis mu lay gis nga koy dégg mu lay dégg bokk loolu lu tax mu am man xawma ko <laughs> c'est un constat bu ma constaté mais tey boo woowoon un scientifique mën na la développé na la lii ak lii mais ba yàlla waxee ne ruux ah, mbir yàlla la ba tey amul kenn ko yegg ci xam ruux googee doomu aadama yi li leen yàlla may ci xam-xam yeggul ci mën a comprendre problème ruux suñu xam-xam dafa néew moo tax ba xadir doon na wax Moussa alayhi salaam keroog bi Moussa di mu ca xam-xamam fekk ñuy traversé la nga xam ne mooy géej am benn picc bu ñëw samp sàllam ci ndox mi naaw mu ne ko gis nga Moussa sama xam-xam ak sa xam-xam ak xam-xamu mbindaafan yépp ba ñu ko doon bëgg a méngale xam-xamu yàlla dafa mel ni li picc bi jël ci géej gi ndax loolu c'est comparable laa c'est pas comparable yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asamaani juróom-ñaar suñ ko doon méngale ak kursi dafa mel ne benn jaaro bu ñu sànni ci àll bu ñu boole woon asmaan juróom ñaar ak kursi di ko méngale ak arche dafa mel ne jaaro bu ñu sànni ci àll kon ba xam-xamu borom bi ak na borom bi liñ ci xam lu néew néew la wa ma utiitu min ilmi illa qalila loolu tax kenn du bakku ci xam-xam loo xam rek xamal ne da ngaa xam li la nga réere moo ko moo ko ëpp borom boobu nag ne yonente bi salaam maa wàcce ci yow xam-xam su ma neexoon yóbbu ko su ma neexoon nga xëy xëy rek doo xam xamante dara ca mbokk loolu tamit xéewal la gu ñu yàlla may bàyyi fi alquran noonu ca asaru sunna ne balaa yowm alqiyaama alquran minhu badaa wa ilayhi yaud balaa addunaa tukki yàlla day yéege wat alquran daañu xëy nit ñi ah, du ñu mën a tari dara ci alquran téere yañu foogoon dara lépp effacé wu loolu nag mbokk heure boo xamee ne yëg nañ ko jamono bi nga ci toll góor góor loolu sa kemtalal kattan fonk alxuraan jooje ñu ngi muy mokkit occasion yi képp koo xam ne yàlla may na la alxuraan nekk sa dënn nga looy fonk kon nu raw ni ngay fonk sa dërëm sa xaalis bi nga denc boo koy sàggane muy dem yeneen bi alei salaam nee na gis nga ki tënk gileemam bàyyi ko ci àll bi tànk mi ngi dem di ko nemmeeku dana ko mën a jàpp di delloo si waaye bu toogoon weer faaliwu ko day ñëw rek gilam nga réer ko alxuraan it noonu la mele la nga ca wattu tànk yaa ngi koy nafar di ko bàyyi xel yàlla bàyyi ko sa dënn waaye boo ko sàggane yàlla yóbbu ko yàlla na yàlla wattul ñu alquran boole ñu ñi ko gëm topp ko mi ngi noonu cheikh ousmane illa rahmatan min rabbik إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة الملائكة قليلا بارك الله فيكم suñu borom mu ne illa rahmatan min rabbik nekkul xéewal googu di sax lu dul yërmaane bu bawoo ci sa borom inna fadlahu kaana alayka kabira ay ngëneelam ci yow day nekk na lu mag lool qul layn ijtamaat al insu wal jinnu نيل بو داجو نين نيب اك جين ييب على ان ياتوا بمثل هذا القران تي ني اند لو ملنا القران جي دي لا ياتوا نبي مثلي دني مانا اند موك لو ملنا القران ولو كان بعضهم لبعض زهيرا دونت لا لين تي نيوم دا فا نيكون تي لا تي ديس ني لين دي ديمبلي ولقد صرفنا للناس في هذا القران نين تيخالين نيل ني القران جي من كل مثل تي بيب فاسو مثال fa aba aksaru naasi illa kufura donte ne bañ ne lu ëpp ci nit ñi dudul ak weddi rek wa qaalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al ardi yanbu'a ñu ne kon ñun nag duñ la mën a gëm lu dul da ngay ballal ci ñun ci suuf si la nga xam ne mooy ab diig bu mag ci biir màkka aw takuna laka jannatun min naxilin wa inab wala boog mu ñeel la jardin boo xam ne day feesi ki tàndarama ak i raisin fa tufajjira al anhaara qilaalaha tafjira nga daal di génne tasaare ci biir jardin yooyee ay dex yoo xam ne nii ma ngay daw ci biir di di di di wal ak ak wal aw tusqita samaa kama zaamta alayna kisafa wala boog nga waddal asamaan comme ni nga koy joorte ci ñun nga waddal ci benn cër bu jege dogit bu jege ko asamaan aw taatiya billahi wal malaikati qabila wala ba ngi indi yàlla ak i malaakaam ci la nga xam ne mooy ak jàkkaarloo mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne bokk na ci ngëneelu yàlla mu wàcce alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu it mbokk jullit da xam ne lépp loo xam ne xam nga ko nga la way xamal ne yërmaande yàlla la bum la jagleel nga war caa sant ci borom bi borom bi nag mu ne ngëneel yi ma def ci yow màgg na lool naam mbokku jullit moom la jël muy ngën ci mbindaa fanam mu jagleel ko xéewal yoo xam ne jagleelu ko yeneeni yonent yépp sax daana wax ne yàlla jagleel na ma juróom yonent yi jëkk yépp amuñu ko te mooy nu surte bi rox ba masirata shahr su ma waree xeex ak samay noon un mois dootu ñu mën a nelaw guddi yàlla may na ma lu ma gañe ca euh, xeex ba ma lekk ko daganul woon ci ñu jëkk ñi yàlla may na ma li nga xam ne mooy suuf yépp sama xeet fu ñu julli jotee mën nañoo doon ñu julli yàlla defal na ma mboolem yonent seen xeet lañ leen doon yónni man nag yàlla damaa yónni ci mboolem mbindaa fan yi yàlla defal na ma yowmal qiyaama la nga xam ne mooy maqaman mahmuda mooy mooy nar a taxaw mu jaami ngir yàlla atte ay ay ay jaamam loolu mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla def ci moom ay ngëneel yoo xam ne nii gëneel yonent bi boroom xam-xam bi bind nañ ci loo xam ne té paasu ne téeméeri gëneel yu ko yàlla jagleel boroom boobu nag subhanahu wa taala gëneel googu nga xam ne bokk na ca mooy képp ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci moom fukki yoon te mooy ngëneel bu mag bu mu bokk ak xeetam képp ku julli ci yonent bi benn yoon yàlla dina julli ci yow fukk yoon loolu moo tax ba it ki ëpp ngëneel ci kaw suuf gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kii ëpp lu mu jëfe te la yonent bi alayhi salaam indi woon looloo tax ña ca jiitoon mooy sahabatul kiram ak ña ca topp ak ña ca topp ku la ëppalee ci topp sunna kooku moo la ëpp ay xéewal yu bawoo ci yàlla loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag ne alquran gi nit ak jinne bu ñu daje woon bëgg a indi lu mel ne moom duñ ko mën a indi na am mbokk jullit loolu arab yu jëkk yi gëmoon nañ ko te ñoom ñoo gënoon a mën a woy ci lépp lu yàlla bind euh, sunu maam yi gëmoon nañ ko ba baa ñu dund li ñuy tuddee la science exacte bi am science boobu nga xam ne tey ay xuraafaat yoo bëree bëri yoo xam ne nit ñi daanañ ko wax dangay gis ne science dafa ñëw dajj ko sànni ko fële waaye tey mbokku découverte scientifique yi am yépp amul benn aaya ci alquran ci six mille aaya yi nga xam ne wax na ci lu nekk alquran wax na ci histoire wax na ci jaww ji wax na ci biir suuf wax na ci ngelaw yi wax na ci lu nekk amul benn aaya boo xam ne alquran ñoo ne weddi bal la nga xamee ne wala boog science ñoo ne weddi ko bal la nga xam ne mooy li am kay mooy da koy dëggal jàpp na euh, mag ñi fi nekk ñu ngi fàttali ko Maurice yi nga xam ne bokk na ci ñi jëkk bind ay téere le Coran la Bible la science ancien ab chrétien la woon mu tub du ci l'islam Al Quran, bind téere bi di woné comparaison entre science Al Quran, ak la nga xamné mom moy injil yi chrétiens yi yor kenn xamul ñaata mbir yu nekkoon ci injil scientifiquement da ko rejeté mais amul benn aaya ci alquran buñ mën a wax science da ko rejeté bal la nga xam ne mooy ña ci bind gannaawam lu mel ni euh, li ñuy tuddee benn livre bu ñuy tuddee yéen dara ngeen mën ko gis ci ci internet bi mooy gloire à Allah ou les mille vérités scientifiques mooy téere boo xam ne da wan loo xam ci wàllu science rek masalan buñ naan la baatu yawm al yawm yàlla ko wax 365 fois ci alquran gay lu lum la yóbbu gis nañ ni année solaire bi ça fait 365 jours am déet ak quelques heures motax tax def bi septil amma la nga xamne moy mois a shahr yàlla ko wax 12 fois ci alquran gay lu loolu yéemewul a way la nga xamne moy nombre bi yàlla malaka nombre bobu la yàlla wax la nga xamne moy mooy ila akhiri lol lépp mbokk day wone ne exacte bobu doomu aadama mënul woon xalaat abadan lii mën na nekk ba tey buñ dajale woon nit ak jinn yépp ñu bëgg indi livre bu mel noonu wàcc pendant 23 ans wax ci domaine yu safante ko ca am benn juuyoo amul ci suñu borom mu ne wala kaana min indi gayri llahi la wajadu fihi ixtilafan kasira pendant 23 ans suñu borom mu ne bu jóge woon ci keneen ku dul yàlla daan ci fekk juuyoo yoo xam ne juuy yu bari la waaye déedéet mbokk laa yaatuna bi misli bal suñu borom mu ne faatu bi ashri suwar mu ni leen indi alquran indi leen dix saar mënuñu ko indi leen benn saar mi ngi noonu faatu bi suuratin indi leen benn saar kenn mësul dindi dëkk boobu suñu borom yàlla dëkk ay jaamam loolee mbokk ba ko borom bi waxee gis nañ ne yéefiri Quraysh yi mas ñoo daje ca Kaaba ga kàngam yëpp Utba ibnu Rabia Shabi Shayba ibnu Rabia Omar ibnu Hisham muy Abu Jahil saay saay ba ñoom Abu Sufyan ak ñeneen ñeneen kàngami Quraysh yëpp daal di wóolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw Muhammad wax ko seeni proposition yonent bi na leen man daal li ma leen di wax uumal lenn lu jóge ci man li ma leen di wax yépp yàlla moo ma ko sant ñu ne ko waaw léegi kon ba bëggee ñu gëm la juróom yii dañu ci defal benn benn màkk gii dañoo am problème ndox fexeel génn fi benn diig boo xam ne nii day doon benn lakk bu mag ñu xam ne lii yaa ko def kon ñu xam ne kon yow yàlla la yónni wala book yow yow yaa ngi nekk nii di tukki Saam ak fu nekk di ut loo dundee ak nangam xam nga loo bu ñu bëggee ñu gëm la fexeel yàlla indi la jardin boo xam ni day fees dell ak i tàndarma ak raisin dex yi di daw ci biir. wala boog boo munti def lu baax xanaa mën ngaa def lu bon boog waxal yàlla mu wàcce benn <laughs> benn dogutu asamaan mu mu mu daanu suñu kaw. yaa ngi dégg wala boog nga wax yà nga won ñu yàlla ak i malaakaam ñu jàkkaarloog yàlla ak i malaakaam yàlla nañu Muhammad sama yonent la. mbokk lii bokk na luñ ko proposé ñu bàyyi Cheikh Ousmane mu yeggaleel ñu أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا جزاكم الله خيرا suñu boroom jalla wa ala mu ne yéeféer ya dolli ca nañ ne aw yakuna laka baytun min zuxruf walla boog mu ñeel la la nga xame ni mooy kër goo xam ne ni kërug taar lay doon donte na arab daana ko gën a wax or aw tarqa fi sama walla boog nga yéeg jëm kaw asamaan wala nu'mina li ruqyik duñ gëm mukk na yéeg na jëm ko asamaan nag xatta tunazila alayna kitaban naqra'u lu dul da ngay wàcce ci ñun téere boo xam ne dañ ko jël jàng ko qul subhana rabbi yow yenent bi neel sell ñeel na sama borom hal kuntu illa basharan rasula ndax man nekkuma lu dul nit koo xam ni ku yàlla yónni rek la wa ma mana annaas an yuminu is jaahum alhuda dara teewul nit ñi di gëm bu leen dikkalee ak njub illa an qaalu xanaa lu dul ñu nekk naan abaasa allahu basharan rasula ndax yàlla dina yónni nit koo xam ne yonente la qul law kaana fi l ardi malaikatun yamshuuna mutmainnin neel bu doon te ne day daa nekkoon ci kaw suuf malaaka yoo xam ne ña ngay dox dox goo xam ne day ànd akuk dal la nazalna alayhim min alsamaai malakan rasula kon day doon nañu wàccee ci ñoom mu jóge kaw asamaan malaaka boo xam ne ci lay doon qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum neel doy na ci yàlla seede sama digganteeg seen diggante innahu kaana bi ibadihi xabiran basira moom day nekk ni ci ay jaamam ku ci ñàkk kumpa koo xam ne nii ku leen gis la ay ku leen xam la mi ngi noonu mbokk yéeféer yi def nañ seen proposition bokk na ci loolu ñu ne ko su dee ne it bëgg nga ñu gëm la fexeel ba yow nga am kër goo xam ne day nekk en noor gis nga walla nga daal jóg yéeg kaw asamaan ñu gis la ngay naaw jëm kaw asamaan te it boo naawoon bu dugg asamaan it xam nañ ne see njabar lu rëy bala ñu laa gëm danga wàcc wàcce ab tiire boo xam ne ñun ñëpp koy bokk jàng mu jóge ci yàlla mi ngi noonu ñu xam ne lii yàlla subhanahu wa taala moo la ko jox suñu borom ne yenen tibari sallam ne len subhana rabbi sel ñel na suma borom te mbokk sel ñel na suma borom moy loolu ñu wax lépp ki ka man rek moy yàlla inna allaha nak ala kulli shay'in qadir suñu borom yàlla neena na وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا الصامود ناقة مبصرة فظلموا بها ترسي نجانغلو لو يقول درا waa Samuud waxoon nañ lu gën a ñàng li ñu ne yonent yàlla Saalix da ngaa bëgg ñu gëm la montagne bi fexeel génneel ñu ci gileem soo ko génnee ñu gëm la ba mu génnee montagne bi dañoo wetti kon yàlla am na kattanu def li ñu wax yépp waaye suñu boroom subhanahu wa taala ngir yërëm xeet bi ndax bu indi woon kaawteef ñu weddi da leen di alak ñoom ñépp looloo tax indiwul kaawteef yooyu te yonent bi alayhi salaam mosu ko ñaan mu indi la nga xam ne mooy kaw te fi yooyu subhaana rabbi sell na ñeel na sama borom man ndax nekkuma lu dul nit rek la te yonente la mbokk ñaari kàddu yi muy kàddu yi essentiel yoo xam ne nit ñu bari ca lañu ñu euh, juyoo benn mooy man nit la ca mooy euh, naam loolu jullit ñi lañ koy wax gaa yi muhammad alayhi salaam nit la ay basharun la yu'bad nit la koo xam ne kenn du ko jaamu am déet kenn du ko yaakaar kenn du xëccali ko ci moom ndax innama ana basharun mislukum nit laa ko yéen waaye nag rasula yonent la rasulun la yukazzab kenn du ko weddi ay yéen yéeféer yi muhammad rasulullah la muhammad rasulullah la nit la naam comme ñun ah waaye rasulullah la moom la yàlla tànn mu nekk yonent loolu mbokk da ngay gis ni mooy la nga xam ni ki boole gëm ñaar yi kese mooy ki tege ala siraatil mustaqim amaa nag bu ñu delloo ci proposition yéeféer yi mbokk réeral nañu bari ñu bari dañoo jàpp ne kilifa ak diine ay toolam moo war a gën a rëy tool yépp woto bi muy war moo war a gën a rëy woto yépp kër gëm muy dëkke moo war a gën a màgg kër yépp su génnee la muy sol moo war a màgg li ñëpp di sol mbokk gisin boobee da ngay gis ne bokkul ak gis na fa yàlla jaarale ay yonentam abadan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dund na ci kaw suuf yàlla def ko exemple extrême boo xam ne yéefar yi ko jëkk a seede yaakaar naa yéen ndaw ñi gis ngeen les cent personnes les plus influentes du monde parce que bi ñu du ab julit te muhammad la teg ci kaw moom la Victor Hugo doon tagg naan mooy le seul empereur bu ñu xam dans l'histoire mu tëdd moom njabootam di fande du ñu reer le seul empereur jiite empire ba pare yàgg sa njaboot du ñu reer Muhammad rek moo ko mës a def ca nekkoon na koo xam ne ab yéeféer la loolu kon mbokk yàlla da koo defoon mu tànn nekk ab abdan nekk ab jaamu yàlla nekk exemple suprême ñëpp di mën a roy ci moom ndax bu doon dafa nekk au sommet yor ay palais yor ay nangam kon baadool yi ndax dañ ko mën a jël exemple la wallahi waaye loo mën a jaar ci coono rek xamal la yonente beeg njabootam jaar nañ ci coono bu gën a tar loolee keroog ba ko Omar ibnul Xattaab ñëwee tiim ci néeg bi néeg yeneen ci yooyu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni ibnu musayyab keroog bi gaa yi toj kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ak maam lu ma naqari ndax bëggoon nañu bàyyi ko comme musée pour génération yi di ñëw xam yeneen ci bari salaam lan la doon dund néeg boo xam ne bu yaay Aïcha masaan tëdd nii su masaan di naafila sallallahu alayhi wa sallam il faut mu dóor tànk bi pour mën a am fu mu sujjóot néeg yoo xam ne néeg yu xat la luñ ko euh, defare woon ay bantu tàndarma ak ak i xob Omar ñëw tiim ko mi ngi tëdd ci benn basan affaire yaa ngi marqué ci kawam Omar tuur ay rangoon mu ne ko waaw Omar lu xew mu ne ko sama xel dafa dem rek ci empereur yi nekk ci euh, Faris ak Rome ak nangam mu ne ko Omar Badou da nekk ci sikk sàkka ndax Omar gërëmoo ñoom yàlla jox leen àdduna ñun yàlla jagleel ñu àllaaxira ca mooy bu ko neexoon mbokk yàlla may ko lu ko neex ci alal sallallahu alayhi waaye gis nga dafa préféré woon nekk exemple pour jullit ñëpp moo tax mu ne man nekkum lu dul abdan jaam basharan rasuula borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne nit ñi dara teewul ñu gëm lu dul doon tontu nit kese nu mu nekk yonent suñu borom mu ne li ñuy wax mooy lu teewoon yàlla wàcce malaaka ba doon malaaka mën naa dëkk ak nit ñi ci kaw suuf kon yàlla mu ne dinaa wàcce malaaka waaye mu ne même bu ma doon wàcce malaaka lan laa ko mën a def mooy nit comme ñoom ndax mbokk malaaka nit mu mënul dëkk pour gis ko kon bu ko da ko doon def da ko def mala nit comme ñoom moo tax mu ne walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu basharan wala labasna alayhi ma yalbisu sun damaa wàcce malaaka def ko nit it dañ nit la comme ñun rek am naa malaaka ak ni ko yàlla bindee doomu aadama mënul dëkku di di di di nekk moom ba mu koy nekk ab yonentam borom boobu nag subhanahu wa taala ni yow daal waaraateel te wax leen ne doy na yàlla seede sama diggante ak seen diggante te mbokk suñu borom mu ne wa kafa billahi shahida société boo mën a nekk jamono boo mën a nekk fexeel nekk ci dëgg goo xam ne wóor na la sa diggante ak yàlla yaa nekk ci dëgg même bu la ñépp contré xamal na yaa nekk ci dëgg te yoo mën yowmal qiyaama yàlla dana leen daje dajale seede seen diggante borom boobu nga xam ne mooy alxabiir dara réeru ko ci li xew ci ay jaamam moy al basir mo xam ay jaamam mo leen bind xam leen xam li nek seen biir koko doy na ñi ñuy doyloo ci ànd ak mom bu dee dem nga ba ànd ak ngërëmal yàlla keneen ku la mën a juyoo ak yow du la lor ci dara waaye bu yàlla juyoo ak yow keneen ku mën a ànd ak yow du la mën a jëriñ ci dara yal nañu yàlla boole ci ay farandoom yal nañu yàlla boole ci ñi mi sàmm àdduna ak alaxira boole ñu ci ña gëm ab yeneen tam topp ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal ki nga xam ne dafa bind alquran mooy xooj ko di ko doon di ko naan loolu day am na ay borom xam-xam yu gis ne mën naa nekk su dee alxuraan kese la la bind daal di koy jël naan ko walla bind ko ci aw la lu woo raxas ko naan ko mais loolu du loo xam ne nii lu ñu dëppoo la loolu lu ñu dëppoo la am ñoo xam ni nanguwuñu loolu bind alxuraan kese takk ko am na ci ñoom ñoo xam ne nii jàpp nañ ne mën naa nekk su dee ne alxuraan kese la waaye loolu nekkul lu ñu dëppoo la mi ngi noonu su ko defee la nga xam ne moom mooy la gën a mucc ayib mooy la yonent bi alayhi salaam doon def ay sahabaam doon ko def te mooy jàng alquran di ko raay seen yaram jàng alquran gannaaw ba ñaan borom bi loolu daal mooy la nga xam ne moo gën a mucc ayib wallahu subhanahu wa taala alam naam xamal ni Sénégal ak suñu nguur gi est ce que jotul ñu wax ci euh, ñuy jaay seen bopp ba ñu mën a bàyyi loolu. waaw ah. leneen bi mooy euh, euh, jullit yi nga xam ne am nañu am nañu kii benn imaan boo xam ne kawe na yéen daal est ce que mooy duñ leen jàppale ñoom it ñoom ñu am ay soxna ñoom ñu seen i bakkan. incha allah waaw nañ ñaan loolu léegi ku mën a jokkoo gouvernement bi na ko ñaan. ñuy jaay seen bopp nañ bàyyi jaay seen bopp célibataires yi ñu jàppale leen ñu am soxna bismillah bismillah waaw waaw ah waaw da nga yëkkati sa baat tuuti lan moo war nekk suñ taxawaay ci ah waaw lan moo lan mo wara nek sun taxaway ci yahudi eh, dem di di ray suñu mbokk julit ma la ci yenen ci bala salam waxon rek ci gis ci yentu lu bon ko dindi ak katanam su ci manul na cey wax bam dañ su manul mu nakari ko ci xolam lool rek lañ ci man fiñ toll mu ci nakar lu suñu xol ak ñaan yalla yalla mi nga xamne dara tewuko yalla mu ne walaw sha allah ya ya eh, lan tasara minhum su neexoon yàlla yàlla wàcce ay mbugalam ci yéeféer yi walakin yabluwa baadukum bi baad waaye moo ko soob muy nattu nit ñi ci nam ko neexe kon yàlla moomu dong la ñuy ñaan ngir mu daal di jeexal loolu nga xam ne mooy mooy mooy li xew Israël euh, ca bu le bu ñuy wax mukk Israël nañuy wax Occident de manière générale ka ci jiitu mooy États-Unis pas Israël Israël benn pays la ca Occident tout l'Occident réuni ñooy def li Israël di def Israël defu ko de tout l'Occident réuni Amérique à la tête ñooy def li ñuy def loolu bu ko kenn wax Israël dañuy wax Occident loolu nag li ñuy wax ñaan rek yàlla ñuy borom kattan yàlla na yàlla jeexal ko ci jàmm ca delloo jullit ñi fa ñu war a taxaw ngir mu jagleel leen la nga xam ne moom la leen dig suñu borom yàlla mu ñu wax dë mu ñu wax du deñ aw fo bi ahdi oofi bi ahdikum jaar leen fi ma neex ma defal li li leen neex mais tey li ëpp ci jullit ci tey dañoo jàdd yoon woo yàlla na yàlla delloo ñu ila siratul mustaqim non waaw am na mbokk bu doon waaw kon incha allah kon mën nañu waaw ñu mujj ci mbokk bi doon yëkkati fi waaw waaw bisimilah waaw. mu ne afdal. waaw. waaw. ndax dañuy tegtal ci. waaw ah, waaw loolu kay yonent bi alayhi salaam dane koor gi gën mooy koor gi ñu woor ci muharram ndax day tegtal bëriwul koor ko koy day tere bërim koor maadaama koor gi gën ci koor mooy bu dee en tant que weer naafile bi gën mooy yomu yomu arafa gannaaw ba yomu yomu ashura loolu mi ngi nekk ci arafa nekkul ci muharram amma ashura moom mi ngi ci biir muharram waaye daana wax ni gannaaw ramadan weer yi gën ci li ñuy woor mooy shahrullahi muharram mooy weer wi nga xam ne ni moom mooy shahru muharram mi ngi noonu yal na yàlla defal ñu jàmm fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal ki nga xam ne dafa bind alquran mooy xooj ko di ko doon di ko naan loolu day am na ay borom xam-xam yu gis ne mën naa nekk su dee alquran kese la la bind daal di koy jël naan ko walla bind ko ci aw la lu woo raxas ko naan ko mais loolu du loo xam ne nii lu ñu dëppoo la loolu lu ñu dëppoo la am ñoo xam ni nanguwuñu loolu bind alxuraan kese takk ko am na ca ñoom ñoo xam ne nii jàpp nañ ne mën naa nekk su dee ne alxuraan kese la waaye loolu nekkul lu ñu dëppoo la mi ngi noonu su ko defee la nga xam ne moom mooy la gën a mucc ayib mooy la yonente bi alayhi salaam doon def ay sahabaam doon ko def te mooy jàng alquran di ko raay seen yaram jang alquran gannaaw ba ñaan borom bi loolu dal mooy la nga xam ne moo gën a mucc ayib wallahu subhanahu wa taala alam naam Uh, uh, benn imaan boo na ñu nañ ñaan loolu léegi ku mën a jokkoo gouvernement bi na ko ñaan ñi jaay seen bopp nañ bàyyi jaay seen bopp célibataires yi ñu jàppale leen ñu am soxna bisimilah waaw bisimilah waaw ah waaw da ngay sa baat tuuti waaw. lan moo war nekk suñ taxawaay ci ah, waaw lan moo war a nekk suñ taxawaay ci yahudi euh, dem di di rey suñu mbokku jullit mooy la ci yeneen bi alei salaam waxoon rek ki gis si yent lu bon na ko dindi ak kàttanam su te mënul na cay wax ba mu dañu su ko mënul mu naqari ko ci xolam loolu rek lañ ci mën fi ñu mu toll mënuñu ci naqarlu suñu xol ak ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla euh, mu ne walaw shaa allahu lan minhum su neexoon yàlla yàlla wàcce ay mbugalam ci yéeféer yi walakin yabluwa baadukum bi baad waaye moo ko soob muy nattu nit ñi ci nam ko neexe kon yàlla moomu dong la ñuy ñaan ngiree mu daal jeexal loolu nga xam ne mooy mooy mooy li xew Israël euh, ca bu le bu ñuy wax mukk Israël nañuy wax Occident de manière générale ka ca jiitu mooy États-Unis pa Israël Israël benn pays la ca Occident tout l'Occident réuni ñooy def li Israël di def Israël defu ko de tout l'Occident réuni Amérique à la tête ñooy def li ñuy def loolu bu ko kenn wax Israël nañu wax Occident loolu nag li ñuy wax ñaan rek yàlla mi borom kattan yal na yàlla jeexal ko ci jàmm ca delloo jullit ñi fa ñu war a taxaw ngir mu jagleel leen la nga xam ne moom la leen dikk suñu borom yàlla lim ñuy wax dë lim ñuy wax du deñ aw fo bi ahdi uufi bi ahdikum jaar leen fi ma neex ma defal li leen neex mais tey li ëpp ci jullit ci tey dañoo jàdd yoon wa yàlla na yàlla delloo ñu ila siratul mustaqim non waaw am na mbokk bu loolu waaw kon incha allah kon mën nañu waaw ñu mujj ci mbokk bi doon yëkkati fi aw waaw bismillah waaw mën naa waaw. waaw. ndax dañuy tegtal ci. waaw non ah waaw loolu kay yonent bi alayhi salaam dane koor gi gën mooy koor gi ñu woor ci muharram ndax day tegtal bëriwul koor ko koy day tere bërim koor maadaama koor gi gën ci koor mooy bu dee en tant que weer. نافل بي گن مو يوم يوم عرفه كما بو يوم يوم عاشوراء لولو ميغي نيك تي آه، عرفه نيكول تي آه، محرم اما عاشوراء ميغي تي بير محرم واي دا نا واخ گناو رمضان آه، وير گن تي لي ني وور ما شهر الله محرم موي وير ويغا خامني ني موم موي شهر محرم ميغي نونو يالنا يالا ديفال ني جام في الدنيا والاخره وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين